di gën a soññi nit ñi ci ñu gën a xemmeem Touba ca kanam rawatina jigéen ñi nga xam ni ñoo man ci Touba ci kanam képp ku woote kafeek Touba ci kanam boo soñoon sëñ Moustapha Mbaye teew ja ndax animé gu mu koy animé ak soññi gu muy soññi ña fay teew ñëpp rawatine jigéen ñi ba ñëpp gën a am xemmeem ci liggéey bi gën cee xër loolu Touba ci kanam amee na ko ci cant goo xamante ni amul fu mu yemee sëñ Moustapha nag li ci sëñ Fallou mbay mi wax léegi rek doy na sëkk ndax buñ ne diw baax na dañ ni mbaa mbokk ya ñoo ko wax ñu ko mën a wax mënees na ko gëm waaye bu ko mbokk waxee nag ci lay gënee li ci sëñ Moustapha Mbaye wax léegi doy na sëkk ndax mag mooy jur lii mu seere ci moom ku sañoon say wayjur seere ko ci yow ku sañoon say mag seere ko ci yow loolu rek doy na sëkk waaye ñun itam jaxasoog gi ñu jaxasoog moom ci tubaa si kanam xam nañ ni li sëñ Moustapha wax lépp jombul ci moom ndax weer melekaan woowu rek lañu ñu wan kon dañuy sant yàlla ci jaxasoog gi ñu jaxasoog moom ànd gi ànd ak moom liggéey bi ndax Touba si kanam moom ñu bëgg sëñ Touba rek la ci sëñ Touba dajale képp ku bëgg sëñ tubaa boo yëgee Touba ci kanam da nga ci soobu te kem sa kemtalaay kàttan ci ni nga bëggee sëñ Touba ak ni nga xéere ci moom noonu ngay sooboo ci Touba ci kanam Moustapha Mbaye nag amul kenn ku bokk ci Touba ci kanam taxamu ko loolu pësteefam ak bëgg gum bëgg liggéey bi ak soobu gum ci soobu moo ko yóbbu foofu ku bokk ci tubaa Ca Kanam rek xam nga kan mooy Moustapha Mbaye bàyyi sëriñ ma ne si na ko umpale waaye Moustapha mbay kenn umpale ko ci waa Touba Ca Kanam loolu pësteefam moo ko yóbbu foofu ak bëgg gum bëgg liggéey bi ak xeer gum ci xeer ak joxe gum si joxe boppam kon ñoo ngi ko ciy sant di ko gërëm di ko ñaanal ngërëma sëriñ tubaa li nga xam ne moom lay sàkku te lépp ngi ci biir sëriñ Touba yàlla ko suñu borom jàppandal ci barkeb Xaadimu Rasuul barke wasilaam di sunu wasila sëñ bu Diop Samb mi nga xam ni moo wane aw yoon ci liggéey sëñ Tuubaa képp ku liggéey sëñ tubaa war nga ko delloo njukkal ndax moom moo njëkk a liggéey tubaa Tuubaa te ba muy liggéeyal sëriñ Tuubaa xamaguñu woon sax ndax liggéey sëñ Tuubaa mooy lan ak lan lay jariñ dafa gisoon sëriñ Tuubaa xam ni kii kuñ war a liggéeyal la mu liggéeyal ko booba xelum kenn nekku ci te mooy bañ koy sas di sas sëriñ bi di sas taaliba yëpp moom mu jël sasu sëñ bi boole kooku sasam di ko bay xam nga ne sëriñ bu toll ci ñu koy sas comme ni ñu sase ñëpp booba ñu néew ñoo xam ne kii ku ñu war a liggéeyal la moom nag booba la ko suñu borom yeewoon ci sëriñ Tuubaa mu di ko liggéeyal sëñ ma Masamba Diop moom mu nag képp koo xamante ni ci moom ngay askanaloo bu ñu yëkkatee liggéey bu toll ni Tuubaa ca kanam kenn waru la caa man waroo caa des ginnaaw ndax moom mooy ki njëkk liggéey sëriñ tubaatam moo wane ni sëriñ Tuubaa ku war a liggéeyal la Tuubaa ca kanam nag day taw feex gu ñu yàlla wërsëgale ñun ñi toll ci jamono jii ndax liggéeyal sëñ tubaa ba am ngërëmam na ko mag ñooñu amee woon lu jafe la waaye nag doonul lu jomb doonul lu mënta nekk ndax sëriñ tubaa daa wax ni wala tuxassis fadala rabin qad li si taqadumin faqat fa tajahala nee na ngëneelu suñ borom bu màgg mi bu ko jagleel ñi jiitu rek nee na boo ko defee da nga réer ndax suñ borom ngëneelam yemewul fenn boo nee ña jamonoontoon yonent bi yóbbu nañ lépp danga nga juum ndax sëñ Tuubaa digganteem ak yonent bi ëpp na te ñëwul kenn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam daana wax loolu bu mel noonu di ko nettali ba pare daan ne Serigne Touba barki demoo Njaay la fi jóge kon ñi jamonontu wa ak moom bu ñu ëppalee ci moom ci ñun la waaye du ci kenn loolu mooy li Serigne Touba wax ni ngënee ngëneelal suñu borom li bu ko jagleel ñi jiitu tubaa ca kanam gii nag benn la ci ngëneeli suñu borom yooyu nga xam ni nit ki mën na cee jaaree ba am ngërëmal Serigne Touba loo xam ni boo liggéey du ñëwee kenn ci Serigne ndax li leer ba leer mooy tuubaa gii ni ko sëñ Touba bëggee ak ni nga ko fonkee ak yéen a jëm ci am te ñaan ko ci xasid ak mat la foofu sëy ni ba lépp suñ boroom may ko ko bu fekkonte ne lu jënn jëmm mën a taxaw la def ko kut góor góorlu xar sa tànk tubéy fexe ba Touba mel ni ko sëñ Touba bëggee woon boo léegi doo ñëwee kenn sëñ Touba yaakaar naa loolu benn murid amu ci sàkk doo ñëwee kenn ku jamonoonte woon sëñ Touba ak ngërëm lu ngërëm lu mu am lu mu rëy rëy képp ku ba fexe ba Touba mel ni ko suñ tubaa bëggee woon ñun ñëpp mën nañoo rafet njortu ci ni amul kenn ku la ëpp ngërëm a Sëñ loolu nag ginnaaw kenn nit mënu ko ndax bu ko kenn ne woon kon njabootu suñ tubaa gi defoon ko bu yàgg bu fekkoon ne xajoon na si dunduk doomu aadama damay wax ni kon sëñ Mourou Moustapha dana def dëkk mi ni ko Sëñ Touba bëggee woon wala mu fay jógee wala Serigne Fall wala Sëñ Abdou Lahad wala ku mu doon si njabootu suñ tubaa gi waaye dafa doon loo xam ni xajul si dunduk kenn nit doonul tamit lu kenn nit mën a def. waaye li ko mën a taxawal mooy lu mel ni tubaa ci kanam nga xamante ni murid yëpp lañ tàllal loxo murid yëpp ci war a jàpp ngir ñu mel la dëkk Sëriñ tubaa bi ni nga xamante ni noonu la ko borom bëggee woon. te loolu kii fi nekkal Sëriñ Touba joxoon ci ay firnde yu leer wax na ni bépp kuréel gu fi mas a sosu ci kuréel gii lépp yaakaar wax na ni dëkk bii li Sëriñ tubaa ñaan ci Matlabul Fawzayni moom jàpp na ni tubaa ca kanam dana ko jëmmal te dana ko sàmm ba fa kanam Sëriñ Touba loolu waxi Cheikh Mouhamadou Mountakha la kon loolu war naa rafetloo njort képp koo xam xamante am murit nga nga jàpp ci tubaa ci kanam gi te gëm ni képp ku ci jàpp da nga àgg ci dëgg-dëgg ngërëma Serigne Touba te adduna nag sakkuwuñ fi dara loolu ngërëma Serigne Touba ndax ngërëma Serigne Touba moo ñu may man a may texeeg adduna ak texeeg àllaaxira te lépp luñ bëgg ci àdduna Serigne Touba fàggul nañu ko lépp luñ bëgg àllaaxira tamit mi ngi ci loxob Serigne Touba kon bu ñu xamee ni yoon wi buñ ci jaaree danañu may ngërëma Serigne Touba ñun ñëpp ñu war cee takkutoo góor ak jigéen mag ak ndaw Touba Ca Kanam li muy laaj yomb na muy weer ñaar téeméer bañ ko tàmbaleek léegi nag mi ngi toll si juróomi at yu topp ndax 2017 lañ ko woote woon xalaat bi jóge ci sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Fàllu mu waxoon ni bu ñu fexewoon ba am ñaari million murit kenn ku ci ne di joxe weeru dee ñaar téeméer mboolem liñ bëgg ci dëkk bi danañ ko ci mën a def te duñ taalal kenn loxo te loolu la Sëriñ bëgg ndax dëkk bi Sëriñ Tuubaa ko bëgg defaral boppam taalibe yi la bëgg ñu defar ko bu ko neexoon malaaka yi ñëw def ko ni mu ko bëggee bu ko neexoon tamit jinne yi wàcc defar ko dëkk bi ni ma xamante noonu la ko bëggee waaye li ci nekk ci yiw ak tuyaaba te mooy ngërëm Sëriñ Tuubaa loolu moo waxoon ne ñun ñëpp moom la ñuy sàkku Sëriñ Tuubaa ñun taalibe yii la ko yéene ñun la bëgg ñu def ko moo tax mu bàyyee ñu ko kon képp koo xamante ni yaa ngi dund si jamono joo xamante ni Touba ca kanam am na te li muy laaj weesuwul weer ñaar téeméer te weer ñaar téeméer ku mu doon si ñun man nga ko ndax bis bu set nga yàquloo bu ñaar téeméer te amaana fa nga koy def séenu woo ci njariñal ëllëg boo ci séenoo njariñal tey itam sa njariñ lañ cey séenu tey la yam waaye njariñal ëllëg séenu woo ko ci nga mën a am nag ñaar téeméer yoo xamante ni yaa ngi ci am njariñal tey ak njariñal ëllëg ndax dëkk bi bu leen ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee suñ njariñ la ñun ñëpp ndax doomu aadama fu muy dund fu ne bëgg na bu feebaree mën a faju bëgg na bu maree naan bëgg na mbedd ya ñu defar ko ba am ndox du fa taa oto mën faa jaar ay tànk mën faa jaar bëgg na tamit ay garab am fa ba climat bi mel ni mu war a mel bëgg nañ tamit mu leer nañ ba nga xamante ni sécurité dana fa am bu mat sëkk lépp loolu nga xamante ni nag doomu aadama ju mu mën a doon foo nekk bëgg nga ko fa loolu mooy li tax Touba ca kanam jóg kon ñaar téeméer yi danañ njariñ suñ dëkk mel ni nga xamante ni dëkk yu mag yëpp mel nañ ko waaye nag ñu amee ci ngërëmal Serigne Touba li nga xam ni bu ëllëgee lépp luñ bëgg ci texe mën ñu koo may kon ñi ngi ciy soññ suñu bopp di soññ góor ñi di soññ jigéen ñi nga xamante ne nag ñoo ci man sëñ bi day wax ne Touba ci kanam jigéen ñi ñoo ci man te muy lu wér ndax boo wootee ñoo ëpp luy teew boo laajee ñoo ci ëpp lu ñuy joxe ñoo ci gën a farlu tamit ci joxe ñaar téeméer te saxal ko te lu mooy li Touba kanam bëgg kon jigéen ñi ñu ngi leen ci soññ di ci soññ góor ñi képp koo xamante ne da bokk ci ak mbootaay nga fexe ba boole ko ci biir mbootaay ga ndax mbootaay yi lu am solo la waaye ni ma ko waxee rek adduna rek moo tax ñu di ko sos bëgg buñu amee soxla ci adduna du ñu lebi du ñu def lu ñu war a def dañuy dem ci mbootaay gi rek mu teggil ñu ñu mën a faj suñu soxla lu am solo la ndax sunu borom moo ñu digal ni wabtaxi fi ma ataaka laahu daaral axirata wala tansa nasiibaka mina dunya li la suñu borom di taw féexale ci àdduna nanga ci fàggu sa kërug ëllëg waaye nag kërug ëllëg gële jiital de boo ko dee fàggu ba noppi nag mun la waaye nag bul fàtte sa kërug àllaaxira bul bul fàtte sa kërug àdduna ñàkk a fàtte sa këru àdduna moo leen dugal ci mbootaay yi ndax sóoraale ni ëllëg da nga am soxla soo xamante ni mbirum àdduna la te amaana doo ko bëgg a lebi wala doo bëgg def lu dul noona ngir mën a faj sa soxla soosu nga ne naa bokk ci mbootaay gi ngir bu ma soxlaa ñu teggil ma waaye noonu nga xalaate si mbirum adduna nag ak sa soxla àdduna adduna noonu nga war a jiitale sa soxla ëllëg xam ne ëllëg danañ la dugal ci biir bàmmeel te danga fa soxla ay xéewal yowmal xiyaam da nga fa soxla ndimbal nga ne nag kon naa fàggu lu ma dimbali bu ëllëgee su ma dugalee sa baam sama bàmmeel jëf joojee man ma fa fekk xeet li ma suñ ma taxawee fa kanam sama borom yowmal xiyaam bañ wàcce jant bi ma am lu ma mën a keerloo loolu yaakaar naa ni ku nite war nga ko bàyyi xel ginnaaw yaa ngi bàyyi xel ni sama doom ji bu xewlee rek war naa koo mën a taxawu war ngaa mën a bàyyi xel nag loolee ndax ni sa doom ni ngay bàyyee xel sa doom ji nga xamante ni sa yëgul sax nga naan maa ngi bàyyi xel bu aw xewam ñëwee mu wóor la ni bu ko fi yàlla bàyyee loolee danga ca àgg ba tax nga koy fàggu bàmmeel la ko gën a wóor wóor na la dañ la dugal ci bàmmeel wóor na la tamit ne la da nga dekk yowmal xiyaam euh, ñu wàcce jant bi ba mu jigee lool nga xam ne ku nekk dana fa soxla ker wóor na la foofaat ku mu doon si ñun dana fa àgg kon war ngaa fàggu loolu ni ngay fàggoo lii wala nu ko raw ñaar téeméer yii nag bokk na ci fàggu loolu bokk na ci li tax kuñ dugal si bàmmeel nga man faa am jàmm ndax ngërëmal Sëriñ Tuubaa képp ko yóbbaale sa biir bàmmeel yaakaar naa doo fa gis dara loolu naqari te xéewal rek nga fay gis képp ku ko waale ngërëma Sëriñ Tuubaa tamit da ngay xettalee waaye yow moom sa euh, mucc nga kon nag ñaar téeméer yu man loolu lépp yaakaar naa ëpp naa sàggane ëpp naa sàggane te ñaar téeméer sikkiwuñ ni mën na loolu ndax li ñu koy leeral rek mooy ñaar téeméer boo ko defoon tey Touba Ca Kanam mi ngi tabax ay poste de santé yoo ne ni fi na si juróom benn bërki dem la tegaat xeer yoo xamante ne si ni bu euh, bu noppee mu radoon fukk benn poste de santé bu ne Touba Ca Kanam la mu say def dana mat téeméeri million ak juróom fukk imaginez yow bu fekkonte ni yow poste de santé yooyu yëpp yaa ko defar la loo ci mën a amee ci ngërëma Sëñ Tuubaa te sellal ko te Sëñ Tuubaa rek tax nga def ko ci dëkk bi jëlee la naa tëli yeeg lamp yeeg yooyu yëpp te képp ku joxe sa ñaar téeméer ci Touba si kanam nag na nga xam ni loola mel ni yow dong daanaka yaa ko def ndax suñu borom buy fay noonu lay fayee de du xool poste bi kenn ku ne la nga ca joxe mu fay la lu noonu déedéet kenn ku ci ne da lay jox tuyaabay mel ni yow doo ko defoon. kenn ku da lay jox tuyaabay mel ni yow boo ko defoon li nga xamee ne ak julli mbooloo boo ci bokkoon bu ñuy fay tuyaaba ja duñ la fay sa julli yow képp waaye dañu xool mbooloo ma na mu toll ñu multiplier ko yow ma bokk sa julli mbooloo ko ñu jox la tuyaaba ci toll noonu lépp loo xamante ni mbooloo da ko boo ko def tamit muy ak jaamu yàlla noonu lay demee <clears throat> li Touba Ca Kanam di liggéey lépp nga xam ne fi mu ne nii def na ci dëkk bi lu ëpp 6 milliards képp ku bokk ci Touba Ca Kanam jàppal ni men na mu yow def nga ci tubaa lu mat 6 milliards moo tax sëñ Sambay di wax ne yow man xiyaam nit danañ ko ubbil ab téeréem mu gis sa loo xamante ni day wax ne li du sama téeré dañ maa jaawale ndax dajay gis tuyaa bay milliards te moom bi mu dund si àdduna amaana million sax mosu ko woon am mu ni lii waaye ñu ne ah sa téere la woon ndax mosoon ngaa gis ku jëf lu toll ni milliard nga ni ak a neexoon maam milliard ba def lu toll nii ba nga ko waxee te muy dëgg ci yow rek la la ko suñu borom bindaloon assiment kon bi nga jëlee si ñaar téeméer dugal ko ci Touba ca kanam wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi jégalu jërë ngeen jëf.